doxalee tamit. xam nga dañuy interroger l'histoire Idrissa dafa bokk pour la première fois aux élections en 2007 arrivé deuxième ñëw 2012 arrivé quatrième ou cinquième régressé 2019 mu ñëwaat jëlaat deuxième donc mënuñu natt popularité d'un homme politique tant que demul élection te fii ñu toll nii ñu ñoo yore deuxième place bi à la dernière élection présidentielle perte nañ électorat wala perte ñu électorat. mais entre temps il s'est passé des choses il s'est passé des beaucoup de choses. Mm-hmm. comme on peut avoir des revirements à tout moment li gars wax rek politique xëyul sotti dafa wasin ça peut arriver d'un moment à l'autre nous avons vu ici ou à l'étranger des gens qui étaient vraiment pressentis pour être président une petite erreur leur a permis ñu dellu ginnaaw parce que xamuloo fan lay toll. Mm-hmm. loolu moo tax ñu ni fii mu toll nii ci liggéey bi. mu ngi recenser waat ses militants il va faire le tour du pays aller à l'écoute des Sénégalais di réunir ses structures déggoo ak ñoom xool stratégie bu mu teg nan lañ koy dérouler Idrissa Seck du ku ñuy présenter xam nga yéen ñi nekk ci presse bi vous recevez beaucoup d'hommes politiques qui cherchent à être populaires qui cherchent à vulgariser leur image qui fait qui cherchent à se faire percevoir d'une manière positive Idrissa dépassé na foofu on n'explique plus aux Sénégalais kan mooy Idrissa li ñu wér ba wóor fu mu ne nii mooy ñu demaat à l'écoute des Sénégalais. Mhm. raffermir notre parti restructurer ko et travailler à la conquête des suffrages.